dëkk bi amatul sécurité. waaye nag ku yaakaar ne dëkk bi amul sécurité da ngaa def jàmm. police ak gendarmerie gii. ah man damaa xam ne kat li fi xaw defe ni da ngay def li ngay def ba pare làqatu. wala feeñoo. waaw man de sunu policiers yi xam naa ne ay gi ñu ay ëpp na de. policier Sénégal man damaa defe ni daal ñoom ay jinne lañ. ko fi janax janax la ñu muus muusu jàppale. waa ah ku yabu di def jàmm de. la ilaha daal def jàmm moom. ku janax janax soxna mbay Air Force One maa ngi mel ne autoroute à péage de essence euro paduwaay bi rek la ma jox de létt yi ñëw nga yow laay déglu ci lan dama laa war a wax li ma war a wax ak bari yow mii laay déglu ah man de kii sa jarbaat la quoi. 12 ans la am. damaa juumoon sax ndeke 11 ans la. yow nag yaay ki may wax man tey. ay noo ma jógee fee jóge si mbedd ma rek indi ma fi naan ma ay kii 11 ans la am ak 12 ans la am kii seex la ma ngi ca dëkk ba beneen seex ba moom laa indi fii ndax climat ba dëkk ba bu wooree tàngoor bi da koy sonal ma ne naa ko indi fii ci dëkk bi mu woore kañ nga ma tàmbalee laaj ay di ma enquête ni comme yow mënoo maa wax birima mii di sa doomu ndey na ma wax birima eh, eh, damaa woor damaa woor damaa woor man kay maa tamta woor ba ngoon di dugg ci lenn lenn alaaji dafa mel ni waxi mbedd dugg na sa kër de waxi mbedd alaaji wax ma te damaa bëgg tontu bu rafet mais lan laa koy wax waxu li eh, xew rek li am waxu dëgg gi rek dëgg gi waxu dëgg gi rek waxi mbedd dugg na ba pare koo dajal ba nga fii ñëw. waaw ñi ma dajee la ko bari alaaji waxal ak man damaa yàkkamti bu mi sa lan la. nañ ko waxtaanee bu soo mooy sama aawa. waay ndaw Samba. waaw mu nekk. pël gamel nga signé voilà. bu soo mooy sa lan. mooy sa aaw mooy sama aaw. wa mën alaaji yaa ñàkk fayda dëgg dëgg dëgg dëgg waaye lenn dinaa la ko xamal. Oh, dama xam ne xaj na sa xol bi. gis na man mii damaa wujjewul ak keneen ku dul buso. waxantuma la ak buso mi. jaamu ci yàlla kii xaj na sa xol bi. du yaa ngi eh, ci kër gi maa ngi ci kër gi eh, Birima eh, bu ma seetaan waxal. waxal ak man fii yaa ngi ci kër gi maa ngi ci kër gi. soo déggee teel la rek bu soo toj. kan naa mel ni bulldozer ci kaw. yaa ngi juum de. bàyyi sama loxo yaa ngi erreur de. delloo ma sama loxo. mbir ma waxal yow. waaw ñoom bu ñu mel nii la ñuy def yow yaay calme situation bi. doo dégg man. dama laa mere bul wax ak man dama laa mere. da nga maa seetaan dama laa mere da nga ma seetaan seetaanu ma la. boo nekkoon situation yow fi mu toll nii. du ma la seetaan boo demoon tribunal. yow dañ naan la euh, da ngaa da ngaa da ngaa da ngaa def. bu ma laal de bu ma laal de bu ma laal de waxal sa wax. dégg loolu ma wax la waxal. dangaa takk jabar ja dëkk ba bàyyi ko fa. takk jabar indi ko fii. waaw pédophile nga. ah pédophile waaw dangaa def yëfi pédophile. voilà léegi nag maanaam yow li nga def mooy takk jabar nëbbu ko kii nëbbu ko kële. léegi nag bàyyi ko noonu mu seet. voilà léegi nag ginnaaw feeñ nañu moom xam naa tey doom. feeñ nga bu ñuy ndogu di ñibbi kii def ñuy génn kër gi muy benn. du la génne ñaar ma seetaan. bu la doon génne léegi la lay ma laal waaye dag laal. ginnaaw nag léegi finaalu jot na ma def nga lii feeñ naa damay def xam naa ko looy def xam naa ko maa waaw da ngaa tax ñaari jabar yoo xam ni kenn yëgu ci moroomam boo taxawee ci kanamu juge bi quatre ans de prison du la doy dox pédophile nga lijjanti woo loolu nga dama lay songu xeex de. waaw kon waaw dama bëgg nga bàyyi loolu rek te déglu ma ndax yéen da ngeen di sama mbokk yaag sa jëkkër jóge dëkk ba ñëw fii ku ngeen fi xam lu ngeen fi am lu ngeen fi man ba nar ko fi. sama jëmm jee tax hmm. ma bañ nag ëllëg ñu daja dëkk ba nga may xool may rus ndax yàgg-yàgg da ñooy bokk delluwaat fa ñu jóge hmm. ci kaw loolu nag li ma lay wax ni dafa ma ñor du ma magum waxoon naa ko xamoon naa ko magum waxoon naa ko la sa jëkkër bira ma day doxaan ndaw si ci kesk bi sekk sekk sa jëkkër di mi ngi génn ak moom mi ngi koy doxaan barki démb su mujj ànd nañ kër njaay mu may ñu ñeent fukki junni mu yëkkati teg ko ci loxo bi est-ce que sax financé wul kesk ba man nag wax laa la mënal mbéjum boroom euh, kanam boroom lijjanti lii wàccoo nañu gis nga ñaan ñoom ñaan ñi kiif kiif ku la ci nettali kenn ca moroom ma rek am na junj nag doy na boroom xel wax ju ak dof rekk ko moom maa koy lijjanti